mooy responsable yi jiite transport ñu su bari dañoo dem wiréewu ji si état bi te loolu problème la parce que nit mënoo wiréewu ci moom ni yow laa gëm yow laa jàpp bu mu amee alal yaa ma koy jox ba pare di ko wax lu ko naqari waaye nag dafa am ñaar yu mën la ànd défendre chauffeur bi défendre transporteur bi défendre état bi ñaar yooyu mënuñoo ànd kon man nag li may wax mooy nañu àndaat nekk benn man ne dinaa tantewaat danaa tantewaat de jóg wax ak nit ñi su ma tantewaatee nag ñu dellu mel nañu meloon ma dellu samay tool déglu naa benn meeting bu ñu def Gambie ñu ni suba benn oto du dugg Gambie bu jóge Sénégal te loolu suñu état bi moo ñu ko teg ñëpp nag dañoo wiisewu xool Gambie naan dem dikk Gambie Sénégal dem dikk Gambie mais Sénégal dem dikk Sénégal gépp la yàq. ñun chauffeur bi la gën rey parce que ñun dañoo leb ci banque xaalis jëndi oto léegi Moussa Diop directeur Dakar Dem Dikk ñëw ne dañuy rey bañ dee wet moo andi Afrique Dem Dikk andi Sénégal Dem Dikk léegi dafa xeeb loolu sax mi ngi indi oto dugal ko ba biir Podor ne yaa ngartaa lay def te day traversé partout ci Sénégal.